aw yëngu-yëngu politique yu ñu nemmeeku fan yi biir Sénégal ONG Jamra di diwoo ñëpp ngir ñu dëppoo ak respect wu valeurs yi nga xam ne ni moom lañ ñu xamee. li ñuy tax a jóg ñun ñëpp mooy l'intérêt du Sénégal. muy woote ngir ñu respecter procédure d'enquête yi nga xam ne ni moom mooy tax ba ñu xam ñay faatu ci manifestation yi ci yan anam la ñu faatoo. pëtëm pëtëm pëtëm suuli te te te gëstu ñu bal yi leen jam yan bal la ak fu mu jógee d'accord ñu ci parce balu fital. dañ ko normaliser à travers le monde c'est le code ISO waaye xale yi ñi leen rey du balu police du balu gendarmerie du balu armée duñ ko leeral. respecté it dogal yi nga xam ne ni moom mooy tukkee ci conseil constitutionnel ak ca cour suprême gannaaw ba nga xam ne ni ñu bëre dem nañ kalaame ji foofu dogal bi nga xam ne ni moom lañ jël ca pencum ndaw réew mi tuxal bés bi ñu war a amal jongante falum jiitu réew mi. li di ñaan nag bu ñu demee ba cette laa joxe àtte bu ne élection yi dañ ko war a def le vingt cinq nañu respecter la décision de la haute juridiction bu fekkee juridiction bi dafa wax leneen itam nañ ko respecter. waaye tamit respecter ay valeurs dialogue yi nga xam ne ni moom la senegal baaxoo rawatina bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe. suñu borom ci boppam moo xiir jaamam yi pour ñuy waxtaan ak di sottante xalaat euh, bépp askan boo xam ne lànk nga tënku ci boobu principe. dund nga ko à tes dépens. ONG Jamra jàpp ni dëppoo ak yii le principe mooy tax ba ñu génn ci jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la ñuy jànkonteel ci wàllum politique waaye tamit amal jongante falum jiitu réew mi ci nu mu gënee.